te euh, te dina takk suuf. Ndiaye dafa am benn benn ancien journaliste. Mhm. boo xam ne RTS la nekkoon. Mhm. nekk na ku ñëpp xam nag. Mhm. dafa am benn femme bu dëkk Sacré Cœur 3 VDN ñoo jàkkaarloo kër moom journaliste bi. maire bi nag moom dong moo dëkk. benn doom la am doom ji mi ngi France. maire buntu këram. nee na leen permettre ñu leen ñu fay gaar seen ay oto. mais ñu bañ ko faa raxas parce que amul bon. maanaam bu ñu fa gaaree oto yi ñëw di ko fa raxase. waaw mhm. mais le problème nag mooy journaliste yi fa lay raxasee otoom ak oto jabaram ak beneen oto maanaam ñett oto lañ fay gaaree. ah journaliste bu góor la. waaw ci buntu kër maire bi. buntu kër maire bi. Mhm. loolu nag mi ngi jur ay coow foofu ci koñ bi entre maire bi ak journaliste bi ak jabaru journaliste bi. Hmm? mais bi dem na ci police dem na ci gendarmerie dem na ci fu nekk ba barki démb journaliste bi ñëw gaare otoom ñëwaat fekk ñu xoos ko mu ne maire xoos. Eh, mais loolu Ndiaye jur na fa scandale boo xamante ni. mooy saagante yi ma doon dégg. saagante yu ñaaw. ci diggante maire beeg waa ji. ak waa ji ak jabaru waa ji di këdd buntu maire bi naan ko fi boo wàccee di wax ay wax yu yu ñaawa ñaaw maire mën na ko yaay. journaliste bu nekk fan. RTS la nekkoon ku ñëpp xam la. lan nekk walla la nekkoon nekkoon waaw. nañ bàyyi xel nag njaay ci yenn saa yi ñuy def souvent boo nekkee. doon na nag dugal nga ancien journaliste ah. RTS yëpp. do maanaam lii ne bu d'accord dañ ci ñëwaat de. parce que parce que parce que boo nee mbedd mbeddum buur la boo jëlee sa oto nga dugg ville doo am foo gaate doon mbeddum buur la foo gaare da ngay fay wala nga bañ gaare. mais xanaa xamoo également nit ñëw gaare sa buntu kër xëy na seet lu rafet mooy tax kenn ku nekk sa buntu kër ngay gaaree sa oto. Hmm. mais bu neexee keneen mu ñëw gaare fa. ba ndax sa buntu kër bokkul sa kër. waaw ah. yow li nga jënd. mooy fi sa kër yam waaw mmh. mmh. Ndiaye ñëw mais non lii ma la kay ku ko xam parce que parce que ku ko la la laa ci jàppanteel mu leeralal ma ko ma nangul ko ko. Ndiaye problème. Mmh. sa buntu kër. ba ci buntu place yi ba ci buntu magasin yi dangay gis ku jël magasin bi trois mètres après. def fa ay pavage def fa espace. kenn mënu fa gaare piqué ko pavé ko. lool it loolu it amuñu ci droit. ah Ndiaye il faut ni ngay def dem ville nga gis ñu tegal ay butéel ngay gaare ñu teggil la ko boo paree neexal leen. xëy na jamono ni toll rek ñuy rafetal ak bañ bañ yenn yi mais amuñu ci droit amuñ ci benn droit. maintenant loo am Ndiaye Ndiaye loo am Sénégal kese ah en tout cas lu aju sa kër. gis naa gis naa réew yu bëri yoo xam sax mais amoo droit gaar buntu kër jàmbur. ci mbedd mi. trottoir kenn du ci gaare kenn du gaare ci mbedd kenn du am na yoon bu nit ñi di jaar am na yoon yu scooter di jaar am na yoon yi def vélo di jaar ñi sport di daw am na yoon bu ñu jaar yooyu yëpp dañ koy gaare wala nga gis ko jënd këram génn 3 mètres 4 mètres ne moo moom foofu te maire waxul gouverneur waxul préfet waxul kenn du wax. mais Abba balaa sa xol a jeex. Hmm? nga dem ville yor sas oto bëgg foo ko gaare. <laughs> non yow yoroo sas yow xanaa booy nga yow. quatre quatre nga yor yow da ngay naqaree am foo gaare. quatre quatre nga yor yow waaw waaw yow da ngay naqaree am foo gaare mais mën nga continuer sa histoire. quand même waay waay waay macha allah laqoon naa la jumaa yëmbal jël. <laughs> yaa dañ koy defaraat de. kon maa ngi yow yow. <laughs> mais Ndiaye c'est un problème de. wallaahi c'est un problème la. partenaires yi bala ñuy bala ñuy sori damay tàmbaleeg Optique Vision Plus Sénégal gars yi ñu ngi may laaj boobu léegi kañ la Optique Vision Plus Sénégal di defaat promo. waaw.